li ñu am lépp tawfeex sëriñ bi moo la ko may. gën wut lu baax ci sëriñ Touba la nga ko wute lépp tey jii mi ngi ci loxoy sëriñ Touba dara lu fi jóg amul la sëriñ Touba waxoon ci ne. ku ma defal la gaa yu baaxee defaloon rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma defal lañ amoon ku def la raw lañ defoon ma defal raw lañ amoon kon kenn koo xamante ne bii mën ngaa taxawati di wax ne su ma fekkoon lii wala ma fekkoon laa loo mën a am yéene ko ci yoonu yàlla suñu borom suñ borom waajal na jumtukaay yoo xam ne ni jekk na ci ñu war koo def kon bu ñu kenn mag ci yoonu yàlla mooy loolu. ñuy woo nag daara yi biir réew mi ñu xam ne ziar bi dañ koo jàpp bu ñu génnee koor gi waaye bu ñu ko jàppoon ci biir koor gi sax jekk nañ barke Cheikhul Khadim Mbacké jekk nañ ci defar ko num ko bëggee te bu ñuy ñëw dana faw xa lépp lu ñu mësoon a def ci ziar bi ñu jëmoon. muy tawfeex ju rëy kenn xamul fu mu